gis nga boo amee sa kër yàlla ñaan ñu ko yàlla boo amee jëye say dëkkandoo ñooy njëkk a teew te boo seetloo visitu président de la république ci ci ci logique bu logique ci logique bu leer la nekk di di di di teg Guinée Guinée Guinée ak Sénégal euh, comme Gambie ak Sénégal sauf que Gambie dafa rek dugg dafa nekk ci biir Sénégal mais Guinée ak Sénégal c'est presque un seul pays c'est presque un seul pays parce que déjà lien yi nga xam ne moo ñu moo ñu moo ñu boole gis nga boo demee ci fulaadu bi am na benn partie fulaadu boo xamante ni ci Guinée la bokk donc munu kenn mënu ñoo dissocier c'est impossible mënul nekk <clears throat> teg ci nag ñu bokk ñu ñu bokk ay ressources yu bëri suñu fleuve bii nii Fouta Djallon lay jëlee source yeneen ak yeneen ak yeneen am ay liens yoo xamante ne nii c'est pas seulement des liens diplomatiques mais c'est des liens presque même naturels ñoo ko bokk donc c'est très normal bu tey jii président demee Guinée euh, déjà acte bi nga xam ne moom la le colonel Mamadi Doumbouya Doumbouya defoon ci prestation de serment am rek mais loolu c'est un acte très extrêmement d'une haute portée porte bu am solo solo bu am solo la parce que lañ lañ lañ ko doon reproché daa jël nguur gi par par les armes donc kenn mënu kaa considérer comme et cetera mais <laughs> dëkk bu nekk xam nga laxaw sa dëkk tey waa mi ngi noonu donc ku ci nekk rek war nañ laa mën a nangul li nga xam ne mooy say réalité moom daal li li li li coow li mooy bul génn sa dëkk dem ci beneen dëkk jàmbur di fa jéem a ut wala di fa jéem a def quoi que ce soit parce que ci jamono googu lañ toll lañ lañ toll ñu bokk nag ay. lien yoo xamante ni yu am solo la nekk ci am ay partenariat yoo xamante ne nii yu am aussi tamit solo la ci wàllum koom parce que gis nga euh, Guinée ci euh, ci mun ñu bëri wala sax ay experts yu bëri nee nañu bu bu yàlla defoon mu dox ni mu waroon a mu mënoon naa nekk dëkk bi nga xam ne nii Afrique saw Afrique de l'Ouest ba mu daj mën na leen a jox ci lekk ak naan mais loolu bu fekkee ne lu mën a nekk la Sénégal war na cee mën a nekk premier. bénéficiaire bénéf euh, di cee bénéficier wu ci lu ci njëkk parce que dañoo am ay liens dañoo am ay frontières yu ñu bokk dañoo am histoire boo xamante ne dañ koy partagé donc président de la république bu demee euh, demee waxtaan ak xam ne ni mooy njiital réewu Guinée lu am solo lay doon mais aussi tamit euh, jéem a xool naka la ñuy def pour que partenariat wala sax pour que liggéey bi nga xam ne moom lañu sekk mu nekk liggéey boo xamante ne dafay am solo parce que la menace elle est te mi ngi ñëw buy ñëw bu dalee Guinée tey jii Guinée lu ko dal lu ko dal lu lu doy waar rek daf ñuy laalaale parce que gis nga seen dëkk parce que ñoom tey jii bu bu amoon ñaan ñu ko yàlla bu fa dara xewoon ñi ci ëpp ñu ngi fii une communauté de plus de 5 millions 7 millions ici au Sénégal mais loolu c'est pas une petite communauté <laughs> donc wax dëgg fa yàlla lépp lu leen laal rek daf ñuy laal donc euh, genre visit yu mel nii déjà c'est à magnifier Euh, euh, président mi ngi doxal li nga xam ne ni euh, moom mooy euh, li nga xam ne mooy programme te mi ngi koy doxal ci ni mu waree li ci des nag mooy après li nga xam ne mooy digle yi nga xam ne def nañ ko entre ñaari ñaari ñaari ñaari njiitu réew yi ñu mën kaa matérialiser mu nekk loo xamante ne ni luy am la ba population yi ku ci nekk mën cee gis boppam. D'accord merci Cheikh Maître fekk nañu ci euh, plateau bi yoon.